ma ne politique bi war na cee génn ba mu set wecc ci sa programme euh, da ngay décréter l'indépendance ferme et entière du du du, du parquet. l'indépendance du le parquet le le xam nga procureur il est maître des poursuites en fait. waaw d'accord mais. Voilà. est-ce que da ngay euh, dagg carrément. Euh, non loolu loolu loolu loolu loolu amul fenn xam nga lu tax amul fenn. yéen ñëpp waaw déglu déglu rek ma expliquer la soxna si di nga comprendre. procureur muy États-Unis muy France muy itali muy Belgique muy Australie c'est ce qu'on appelle l'avocat du peuple moom mooy avocat peuple bi moom moo tax c'est lui qui poursuit au nom du peuple tey bu ñu la sàccee yow da ngay jàpp ne ci peuple bi nga bokk ki la war a défendre mooy procureur boo demee porter plainte mooy sa avocat yow mais le peuple est représenté par yi ñu fal noonu lay demee mais procureur warta mun na mun na mun na autosaisir boppam parce que mooy maître des poursuites man na ñu jox ko benn affaire mu ñëw ne euh, ministre de la de de de la justice ah li gisuma ci matière à poursuivre loolu war a am ministre de la justice mooy nommé procureur euh, mooy instruire non beneen beneen problème ngay indi xam nga beneen problème ngay indi ban la qui est juste suma programme man dama ne dañu war a réformer conseil supérieur de la magistrature tant que président du sax président de la république au fond c'est même pas le garde des sceaux c'est la république moo warut a gérer magistrat muy euh, juge muy procureur comme ci mënti doon daal président de la justice waratul la nommer mën naa présider conseil supérieur de la magistrature waaye ca biir ñu am ca un comité de gestion des carrières yow boo dee ma boo dee procureur ñu woo la ne la poursuivre diw nga ñëw ne y a pas matière à poursuivre delluwaat sa kër kenn amul pour affecter la kenn amul pour euh, relever la parce que du kala ko kala koy wax na naa aucun impact ci sa carrière loolu c'est loolooy mu ñuy may ñu mën a am ay procureur ak ay juge yu indépendant au fond noonu noonu lay demee mais tant que lien bi nga xam ne am na saa maay juge bi maay procureur bi euh, président bu waxee garde des sceaux yóbbul ma ko feneen ak feneen soit dit en passant nag nit ñi waruñu plaindre sax ñu naan ma affecté nañ ma Kédougou wala affecté nañ ma Bakel wala affecté nañ ma Ourossogui foofu yëpp ci Sénégal la bokk ça aussi dañuy war a am fierté sax di servir voilà man tam papa voilà ci il a <laughs> servi dans tout les périphéries à l'époque Tambacounda et cetera bon c'est parce que c'était il était du PAI aussi ñu sorel ko mais euh, c'était fantastique pour pour nous voilà donc may invité aussi tout mone ak fu ñu la mën a affecté ci Sénégal di am ci fierte xam ne tu sers ton pays tu sers des Sénégalais voilà ni muy tàngee Bakel lay tàngee Kaolack lay tàngee Dakar lay tàngee feneen